تركت ما كان لي بغير مبتغيا ما علم لي يا بحاجتي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ۖ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم yi ñu dikkaat ak yéen ci nañ ci ku si julli juróom benn rakaa rakaa bu ci ne ginnaaw faatiha mu jàng inna axtaynaakal fukki yoon kon guddig ñaareel gi sopp nañ ci ku si julli juróom benn rakaa rakaa bu ci ne ginnaaw faatixa mu jàng na inna nàkkal fukki yoon mbokk yi li ci nekk ci ay tuyaaba li ci nekk ci ab yool te doomu aadama bu nekk buy jaamu suñ borom subhaanahu wa taala loolu la ci yaakaar mooy suñ borom fay koy tuyaaba bokk na ci tuyaaba yooyu képp koo xam ne taxawee nga julli googu dees na ko jéggal bàkkaaram mi yépp bala moo jóge fa doon ko jullee te dees na ko bundal tuyaaba ju toll ni ko xaji ko umra ak ko saraxe junniy dërëm mel ni itam ku seeti junni ñu wopp mel ni itam ku leel junni ñu xiif kon Euh, mbokk yi julli la goo xam ne ku mat a taxawe la wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yaa ayyuha alladina aamanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ملكت ما كان لي